noonu yàlla daldi wax ak noyin te mu wax noyin mu sàkk benn gaal mu defar benn gaal dugal ci njabootam ak mu tànn ci jur yi góor ak jigéen te dugal leen ci gaal bi ndax yàlla fas na raf àddina ndax bakkaaru nit ñi nooye di defar gaal bi wante ñu ngi artu nit yi ndax ñu tuub seeni bakkaar wante dégluwuñu noye benn yoon te ragaluñu yàlla ñu ngi continuer di déggadil di déggadil suñu borom yàlla mer lool